salaamaaleykum mbokk internet yi suivre Guédiawaye info ñu ngi am mbégte ak kontante bu mag a mag tey ñu dalal boroom xam-xam muy oustaz Abdou Saer Gueye di doom ci doomu El Hadj Moustapha Gueye macha allah oustaz ñu ngi lay ziar di la nuyu. Euh, jërëjëf euh, Cheikh Bekay ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu euh, ñi nga xam ne ñoom ñu ngi teewlu Guédiawaye info. Mhm. di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam waaye di ko sàkku ci yéen mhm. di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala Guédiawaye info yàlla na ko yàlla rëyal mhm. eggale ko foo xamee ne àddina eh, bi yëpp dina ci mën a jëriñu. Mm-hmm. Euh, Oustaz Abdoulaye Abdou Saer ku ko xam xam ko nekk ci Europe daanaka macha allah di borom xam-xam nag vraiment képp kuy kilifa ci réew mi xam nañ ko ndax ku tukki ñëw foofu da nga gis say programme ci wàllu diine nga am ak relation mboolem kilifa diine aussage euh, relation boobu noo def ba suuxat ko am tey muy murit muy tijaan xaadir laayeen foofu képp ku ñëw Italie rek gis nañ relation bi nga am ak ñoom euh, loolu nu mu demee. waaw jërëjëf euh, li ñu ko may mooy l'islam rek lañ yore drapeau euh, en général euh, Italie yëpp boo waxee dañ naan la moom nit la ko xamee ne sans frontière la yàlla def na dafay feeñ ci samay gàmmu doo xamee murit tijaan laayeen ñaseen parce que drapeau l'islam rek moom fay jóge waaye leneen li aussi mooy ci émission yi nga xam ne dañ koy def à la télé mhm. da ci am émission boo xam ne dafa am solo trop mu tudd mbindum mag ñi Euh, muy xasida maam borom Touba xasida maam El Hadj xasida Maolana Cheikh Ibrahim ak ñeneen ñi ñëpp dañuy firi seeni xasida en général kilifa goo ci euh, firi xasida maamam da ngay gis moom moo lay woo directement félicité la mu encouragé la euh, tout récemment rek bi nga xamee ne assiru maal abrar yi maal abrar yi bu Maolana Khadim Rasoul anhu biñ ko fire daanaka kilifa gu ne ci mbàkki mbàkki yi jot nañ ko Euh, dañ lay wax sax ni ñu ko déggee nii dafa mel ni ñun mosuñ koo déggee noonu ndax dañuy jël baytu bu nekk dañuy xool ay alquran bi mu tollool ak xaddis bi mu tollool ñu firee ko noonu daanaka euh, sens interdit boobu daal ñu bañ a am ci këru diine yi loolu moo ñu may chance voilà loolu moo ñu may chance lool ba tax amuñu frontière ci euh, ci këru diine yi sëñ Bécaye. Euh, ñu gis aussi tamit euh, vraiment situation Covid bi ba mu amee foofu gis nañ taxawaay bi nga ci def am na ay mbokk yi ca xam ne génn nañ àdduna seetaan nañ ko nga taxaw ci ay taxawaay yu rafet diine ji tey nan la mel foofu ci réew tubaab yi nga xam ne doomi jullit Sénégal nan la ñuy dundee foofu diine ji. waaw dundu ci jàmm ak salaam Italie réewu chrétien la mais li muy nekk réewu chrétien dañu ak yi kenn xamul num tollu ci bir Italie eh, léegi eh, déjà djuma ji gëna mag ci Europe rek rom la nek lolu déjà dara la eh, waye tay bo Bergamo da ngay gis ñu am fa allahu taala djuma ju bes au coup de un million d'euros dëgg-dëgg da ngay xamné lolu sant yalla la donc diiné bi en Europe alhamdullilah rabbi alamin parce que man amna lu tolok 36 conférence ak gam ci bir Europe bi Euh, dëkk yëpp def naa ko Europe bi yëpp euh, Europe bi yëpp def naa ko Europe bi yëpp dama ci am ay programme mais sant yàlla bu baax ah vraiment dind bi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy dund bu baax Covid bi nag am na lu mu baare woon. ci euh, ci diine ji mooy daje yi rassemblement yi yooyu yëpp amatul woon ba fi may waxee ak yow ni sax gàmmu ak màggal yi ak conférence yi dañu leen a arrêté. ndax rassemblement yi la ñuy la ñuy bañ mais diine bi daal moom mu ngi mu ngi. mu ngi avancé ci biir Europe man mii rek sama jëmm ju xeeb di juróom-ñaari italien tubal naa leen. Euh, tubal naa leen euh, kii ci mujj janvier bi passé la ni euh, tubal ko ba pare may ko jëkkër. donc kon diine lislaam moom ci biir Europe alhamdulilahi rabbil alamin oustaz ñu seetlu benn ba affaire aussi tamit ci wàllu Europe. gis nañ tey bu ku fa jaar wala yéen ñu fa nekk di fa dundu gis nañ ne muy tijaan bi marit bi xaadir bi laayin bi daanaka événement su amee ñëpp benn lañ Eh, eh, eh, nan nga ma mën a déclarer maanaam ànd googu ñu ànd tey doon benn loolu lan lan nga ciy wax yow. dañoo dégg ay alquran bi innamal mu'minuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum innamal mu'minuna ixwa bu fa yàlla yemoon rek mu doy. waaye mu andi fa aslihu nga xam ne fi'lu amr la daf ñu obligé pour ñu rafetal fa aslihu kon yéwénal leen rafetal leen dox leen mbokk gi dox leen ci jàmm ak salaam pour nekk benn gi mën a mën a wér nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibba li nafsihi nit gëm yàlla mënta wér lu dul lim bëggal boppam moom la bëggal moromam ñun Europe nag vraiment ñu dégg ko bu baax par exemple boo ñëwee Bergamo gi nga xam ne fa laa miin dëkk fa lu mel nii ñaar fukki at ak juróom-ñaar nga dëkk fa yàlla dogal na foofu même léegi dootuñ am ay gàmmu wala conférence wala màggal yuy daje amatul dañoo jël léegi. Euh, benn calendrier. Mhm. nga xam ne man man maa gérer calendrier boobu. Mhm. Euh, ut benn calendrier boo xamee ne ku am événement da ngay dugal wax jour bi. pour keneen du mën a jëlaat jour boobu parce que xam nañ ne benn mbooloo bi moom mooy moom mooy wër ñooy jóge fii ñooy dem fële ñooy dem fii dem fii donc ñu fexe ba loolu ñu dajaloo ci ba nga xam ne duñ mën a tàqalikoo ku xewle rek ñëpp àndi dem parce que bu fekkee defuñ ko doo toog fii cinq minutes doo toog fee 10 minutes doo déglu fii doo déglu fële te conférence ak gàmmu ak màggal li ko taxoon a jóg euh, loolu war nañ ci bàyyi xel loolu sëñ Bécaye mooy fexe ba jàngale bi nga fay jàngale nit ki dégg ko waaye nit ki bu fekkee dafa teg fi 5 minutes dem fay 10 minutes du dégg dara dafay sonn ak yàq essence ñun moom alhamdulilah rabbi alamin dégg nañ bu baax li yàlla wax ne dañu rafetal ci suñu biir waaye dëgg nañ bu baaxee ne jullit gëm yàllaam du dëgër du lim bëggal boppam loolu la bëggal moromam te suñu mag ñaa noonu lañ doon doxee tey boo xoolee diggante ay lettres yoo xamee ne dox na ci sëñ Touba ak euh, suñ maam El Hadj dox na ci sëñ Fallou ak Maulana Cheikh Ibrahim Niass dox na ci diggante kilifa diine da xam ne ñoom benn lañ woon kon nag loolu waruñ koo yemale ci euh, ci wax. waaye dañ ko war a jëf nga dama koy faral di joxe exemple tout temps may wax ne ñu Sénégal dafa mel ni ñoo xaw a retard ci côté boobu tey ab Tijaan su euh, toogee ba mu yàgg dem nekk ji murit murit yi dañuy défilé yaakaar nañu am victoire murit bu toogee ba mu yàgg dem nekk tijaan tijaan dañuy défilé te kenn gañewul ah kenn gañawu ci ki gañe mooy euh, euh, chrétien wala ku nekkuloon jullit ñëw dugg ci lislaam boobu la lislaam yokk mais ku génn ci néeg A dugg ci néeg B te lépp nekk ci biir kër gi loolu victoire amu ci kon loolu war nañ ci bàyyi xel xam ne ànd bi dafa war am bu ñu àndee am doole ndax yonent bi salaasam waxoon na ne al mu'minuna yaddun waahid mu ne jullit yi benn loxo lañu benn loxo mooy cest à que ne bu ñu àndee rek dañuy daal di euh, dañuy daal di am doole. Euh, Oustaz ñëw ci benn xew-xewu jamono mun ma cee ñàkk bañ a laaj mooy série yi nga xam ne tey dégg nga yëpp a ngi koy méttul muy série yi nekk ci télévision yi lu ci mel ne infidèle kilifa yëpp a ngi ciy wax en tant que borom xam-xam dund ci réewu tubaab ñëw fii aussi ci dëkk euh, lan ngay wax ci série yooyu. waaw euh, série yi mooy ñàkk ay kilifa ci biir réew mi Sénégal dafa ñàkk kilifa. neexu la wax waaye loolu mooy dëgg Sénégal amul kilifa ndax euh, boo xoolee gaa bi ñuy gën a nekk xale amoon na fi ay Santa Barbara dynastie nga xam ne la ñoom daw Euh, maam Abdoul Aziz baax bi mu ne toq ci noppam rek dafa woo euh, télévision bi fi nekkoon xam na moom rek moo fi nekkoon woo leen ñu ñëw mu waxtaan ci ak ñoom ne lii na dàkk boobu la film yooyu dàkk waaye tey bu ñu xoolee film bu mel ni infidèle nga xamee ne waxuma sax ci lislaam mais ku dul jullit sax xam na ne lii dafa yàq ay jikko ku dul jullit sax xam na ne film bi kat ak mbon lay wane. ku dul jullit xam ne ne kat film bii kat am na ay lobby yu nekk seen ginnaaw di leen di financer pour ñu yàq jikko sénégal yi. la ma wax ma ni euh, li dal christianisme mu ngi bëgg a dal euh, la religion musulmane ndax euh, dina christianisme biñ demee ci jamono ca France ñu gis ne kat état bi ak diine ji war nañ leen a séparer parce que dem nañ ba nit ñi église bi rek la ñuy déglu. ñu xam ne doole jii kat war nañ ko euh, fexe wàññi dañoo dem ci ñoom fexe waxtaan ak ñoom jël ay nit di leen former dugal leen ci biir église bi ba ñoo ñu dem ba nekk ay cardinal ñu fexe am ay coppite yu ñu def ba église bi daal di néew doole lool loolu lañ bëgg def fi ñu toll ni ci diine lislaam mooy dañuy fexe yàq suñuy jikko yàq suñuy jikko doom yàq suñuy jikko euh, soxna yi ba nga xamee ne tey euh, li ngay gis euh, boo demee France boo demee États-Unis da nga ko fay fekk jàkka joo xamee ne góor ak jigéen mën nañoo jaxasoo ilimaan bi nekk jigéen te du muur xam nga loolu musiba la te ñoo ñu am na ay imaam yu leen di défendre yooyu nag lañ bëgg dugal ci Sénégal nan lañ koy defee mooy jikko yi la ñuy njëkk yàq xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne suñ borom subhaanahu wa dafa daf yoon ni ngir ma mottali jikko yu rafet yi jikko yu rafet yooyu yonent bi ñëw mottali yooyu nag fi ñu toll nii moom la ñuy bëgg a yàq parce que nit boo yàqee jikkoom rek amatul fondement bu baax bu baax moo tax maa ngi ci bind sax téere axlaaqul Mustafa xayrul bariya xallun li kulli mushkilaati al asriya mu nekk en arabe et en italien mu nekk téere boo xam ne damay wax ne ñu roy jikko yonent bi sallallahu alayhi mooy lii régler problème yi ñuy am quotidiennement dans la société donc il faut ñu delluwaat kon film yooyu dénoncé naa ko bind ci lettre monsieur le président de la république Macky Sall deux fois ben bi lettre ouverte la ko def si yu bëri reprendre nañ ko pour wan ko ne ñun dañu am ay valeur réew mo xamé ni 95 musulmans musulman la ñi ci dess am nañ luñu gëm kon li war moy ay film yu melni ni infidèle dañ leen war arrêter tey boo waxoon dara ci góor jigéen wax dara ci franc-maçonnerie léegi ñu commencé wax ak yow mais pourquoi film bu yàq ay jikko film boo xamee ne banditisme lay lay lay jàngale lu tax ma ne banditisme mooy nit boo yàqee jikkoom rek nekk na bandi nekk na bandi kon film bu mel ni infidèle waa CNRA war nañ cee wax xam ne seeni doom ñoo ci yàqu seen doom bu fekkee ne directement yàquñ ci indirectement dañ ciy yàqu kon film yu mel noonu musiba la ci dëkk boo xamee dëkk mel ni Sénégal ñu lu ñu war a arrêté la xam ne nekkul lu nekk tey ñu gis tamit euh, ONG yi nga xam maam kenn kilifa yi fii lu ci mel ni ONG Jamra taxawaay bu ñu ci am yow ban gis-gis nga ci am parce que ñoom ngi ciy taxaw ñenn ñoo taxaw yoo xam ne taxaw ci pegg leen xeex ñoom tamit yow ban taxaw ban ban taxawaay nga ci am. waaw ONG Jamra euh, sëñ Maxtaar dañ koy gërëm bu baax parce que gis nañ ne lépp luy yàq jikko rek da ngay gis ne moom dafay taxaw ànd ak loolu di xeex suba àngoon gu dégg bëccëg mais amul doole. parce que xam nañ ne lislaam lay xeexal lobby yi dañuy ñoom it dañuy def beneen gang commencé waat di koy xeex gis bépp yoon boo xamee ne ci l'islam la jëm ci defar jikko la jëm ci defar nit la jëm dañ koy xeex foofu nag axiru zaman la axiru zaman moo mel noonu gis na axiru zaman lépp lu kilifa yi jëmbatoon rek dañ koy daal di dañ koy daal di yàq moo tax boo demee ci matlabu shifaay da ngay fekk ne sëñ Touba euh, mu ngi koy ñaan Euh, mu ngi koy ñaan wajaal jamia al ulama yi amilina wajaal jamia al amilina muxlisina wajaal jamia al muxlisina zahidina wajaal jamia zahidina nasihina ba mu jeex nga xam ne foofu ay valeur lay jàngale boo demee ci ruuxul adab Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mus naa ko wax euh, dialogue islamo chrétien bu musa def euh, en Italie ma ne leen nañ leen jël ruuxul adab ñu traduire ko en italien jox leen ko ngeen yóbbu ko ci seen constitution yi ngeen appliqué ko ngeen xool un an ndax doo leen dem dañuy dem parce que ruuxul adab Maulana Cheikh Ibrahim da cee jàngale jikkoy doomi aadama nan la war a mel te euh, almarhum al ustaz Ibrahima mm, euh, Mahmoud Jom ñuy nettali mu ne mooy téere boo xam ne bàyyi bi mu ko commencé ba tëj ko laalaatu ko bi mu amee ñaar fukki at ak benn la ba tey laalaatu ko benn yoon kon téere boobu mm, yelloonte àddina bi yëpp euh, xamoon lan mooy njëriñam konoon jikko yi duñu duñu yàq kon ONG yi nga xam ne ñoom ñooy xeexal diine lislaam di xeex jikko yu rafet yi nañ bàyyi xel ne duñu am doole duñu am doole parce que lobby yi nekk ci ginnaaw di leen xeex moom moo moo bari trop te lobby yooyu xamu fu ñu jógee mais ci occidentaux yi la mais lañ leen a dooleel de de trop tey man tey jii moo bëggoon def promotion góor jigéen léegi ma nekk millionnaire su ma bëggoon def promotion lu bon léegi ma nekk millionnaire anecdote bi ma la ci jox dafa am benn imam kuwétien bu ma mës a Bergamo ma jox ko sama benn projet pour ñu financer ko moom jumaa yu bëri en Europe moo financer mu ne ma euh, mën na financer projet bi à 200 chaque année ñu jox ma budget di 100 euh, millions mais damay xeex këru diine yi Sénégal man nag loolu def moo ko defee sama papa day jël jaasi rek rayee ma ginnaaw. parce que yow li ngay bëgg a xeex loolu mooy lislaam ma ne ko par exemple bu fekkee tey da nga jël tarixa tijaniya ma ne ko tarixa bi du leen dul astaghfirullah la ilaha illallah salaatu ala nabi bu dee yii de dafa xaram nañ ànd ñun ñëpp ñu xeex ko mënuma lii kay xaraamul ma ne ko lii moom mooy tarixa bi ça veut dire kon lobby yi ñoo nekk seen ginnaaw di leen di jaxase ak euh, soufisme ba ñu yaakaar ne ñoom mën nañoo xeex ci ko yi te yàgg-yàgg rek dëgg moom mooy mooy mooy féete kanam euh, macha allah